union économique monétaire ouest-africaine donc euh nek ci situation bo xamné gouvernance Abdoulaye Wade diggante 2007 2009 suma ma 2008 2009 bu muy premier ministre amna lu bari lo xamné dañ ko ko don critiquer di dal ci euh té mu bokk ci li nga xamné patch la su gouvernance Abdoulaye Wade kon kooku japp mani ni fay wax pour mu ñu war ko mën a fàttali. mais mais ci ban angle lañ ko war a jëlee. waaw fi ñu ko war a jëlee bu ñu fàttali itam Hadjibou il avait il était candidat à la candidature à la présidentielle de 2019. Hmm. moom li dal ñeneen moo ko daloon maanaam. parrainage moo tax mu jul doon candidat. Hmm. donc def na fi déclaration de candidature euh, def benn discours bu solennel wax ak Sénégal yi wax lan moo di ambition am. Hmm. par rapport lii nga xam ne moom la bëggal Sénégal donc damay jàpp n euh, lii lii lii lii amplifier questionnement bi du lenn. lu le fait que euh, audience bi diggante président Macky Sall ak Marine Le Pen mu nek audience bo xamné dañ ko dañ ko nëbb ba euh, ñu fësal ko à travers le journal Le Monde. Mm. ba moom si wàllu boppam mu def interview ak suñuy ko ay confrères ku mel ni Mamadou Bakane ba wax si euh, audience beeg ak visitam Sénégal defe naa ni bu doon dafa nekk audience normale comme toutes les autres audiences jàpp naa ni questionnement bi du am autant autant d'ampleur ba tax man damay japp ni toujours. Hmm. waxuma aji Soumaré la mais la une interrogation peut avoir une valeur affirmative mais dans tous les cas ce n'est pas le cas excusez-moi de la si li nga xamné ne soxal laaj yi nga xamné mom la aji bu Soumaré ma japp ni nak laaj gi mu laaj man damay ni euh, le mooy ñu àndal ko si ay tontu yoo xam ne da ngay fësal lan moo am dëggantaan par rapport li nga xam ne mooy audience bi jëm si questionnement ndaxam jox nañ ko wala joxu ñu Marine la Pen li nga xam moo di montant wu 7 milliards. waaye li si topp xam nañ ko ma jàpp ni nag man je préfère questionnement mu ak nu mu munti toll. Euh, parce que tam dina permettre de relever rehausser le niveau du débat public dina permettre de rehausser le niveau du débat politique parce que tam ngay laaj ñu lay tontu ngay andi yow tam ay réponse di argumenter def contre-feu discours violent moi, gën fop appel bo xamné dama koy xol né est-ce que qui insurrection la woté wala kay woté wul wala ki li wala manifester wala nangam nangam. Mhm. mais ñun dañoo wara fexé ba nga xamné débat yoy dañ koy susciter sur la place publique. mais japp na ni euh, li nga xamné mom le président Macky Sall def man dama japp na sur le plan de la communication euh, audience accordée à Marine Le Pen serait aurait été une occasion pour lui de marquer un grand coup communicationnel comment Moi, recevoir ko au vu aussi de tout le monde waaye profiter de cette occasion face à Marine Le Pen Django ko lan histoire noire. Django hmm. ko lan moy histoire Afrique Django ko lan moy culture de noire Django ko lan moy jar suñuy jangal ko lan moy relation coopération bilatérale yi nga xamni ak seen français bu ñuy dugg Afrique nañ fi duggé won ak jamono ji ban relation la ñu war ak am ak ñom c'est dommage que lolu euh, xaw ma ndax parce que l'audience lucy lucy euh, euh, lu si tukkee xamuñu ko mais mënon na mënon na mënon na si profito sur le plan de la communication pour mëna dugg ak mom si débat boobu ba nga xamni Marine Le Pen dina remettre en bopam question même s'il faut rappeler que malheureusement en Europe ce n'est pas seulement Marine Le Pen, mais en Europe, mhm. il y a une montée en puissance de la droite et de l'extrême droite da ngay gis ni en réalité. nationalisme bi lañuy gën di prôner jamono ji dans plusieurs pays européens. ba Italie gis nga kii nga xam ni moom moo remporté élection yi ba nekk euh, euh, euh, njiit ba foofu. da ngay gis ni kooku en réalité elle a des idées et une idéologie mais typiquement fasciste. parce que jàpp nañu sax ni kooku lépp lu muy lépp lu muy développé comme comme politique mi ngi koy tibbee si kii nga xam ne moo di Mussolini donc de ce point de vue là damay jàpp ni. Euh, président Macky Sall man si sur le plan de la communication il a été en Côte d'Ivoire. <laughs> il a été également reçu par des autorités ivoiriennes mais l'un dans l'autre quoi qu'il en soit comme nous connaissons les le président a le mu recevoir certes recevoir mais mais, c'est bien aussi de savoir euh, à quoi ils pensent qu'est-ce qu'ils veulent sur l'Union Afrique euh, débat à tenir propos tenir par rapport à ça. en réalité Marine Le Pen je me dis que que mhm. l'Afrique véritablement représente un enjeu de taille au-delà des enjeux moi xam à caractère économique moi xam à caractère géopolitique à quel le monde par rapport à ce que xam aussi à xew euh, euh, elle s'est peut-être remise en question pour ñoo rôle pour découvrir en Afrique France bonne place la fait, am lan la fi occupé mais bu ñu y a un électorat pesant justement en Afrique mm-hmm. si nous avons un français la basé au Sénégal ou basé ailleurs en Afrique mm-hmm. c'est une manière pour elle de venir créer véritablement ben ben cordon de communication avec ces électeurs ñu tourner le dos non sans oublier qu'il y a effectivement des africains euh, des français d'origine africaine ils sont en France Ou au Sénégal ou ailleurs mais quoi qu'il en soit Madame Marine Le Pen encore une fois c'est une honte parce que même quand la France avait perdu la finale de la Coupe mhm. d'Europe en 2016 y ne une honte à cette équipe du Sénégal qui a perdu la finale donc en réalité am na une ñuy ba tax na ñun itam dañoo am ay valeur yoo xam dañ koy prôné te itam autorité bi président en réalité tam ak pour ko yow effectivement li ngay ak la ngay ak la ngay wax mhm. nga dëkk parce que tu méconnais l'histoire et tu ne connais rien de l'histoire doon na une belle occasion en tout cas Seigne Saliou on a l'impression aujourd'hui que scandale bi c'est même plus euh, euh cet argent euh, dont on parle mais plutôt